xalaatoo ne sanctions pécuniaires yi parce que euh, bi ñu leen infliger ces sanctions pécuniaires euh, ses prédécesseurs euh, xalaatoo ne moom mooy moom mooy gën a am impact moom mooy gën a tax ñoom ñu xoolaat seeni seeni matuwaay parce que ñoom bu fekkee ne aujourd'hui ci Covid bi la ñu rendre compte que y a deux secteurs qui ne tomberont jamais en faillite ou qui tomberont difficilement en faillite c'est le secteur de la téléphonie de l'internet ak le secteur de l'agroalimentaire Covid bi li muy métti métti yëpp nit ñi ñu ngi toog seen kër ñu ngi téléphoné ñu ngi ñu ngi lekk déplacement yi sax mun arrêté nañ ko donc euh, ces opérateurs la se font beaucoup d'argent je vais pour en parler parce que mun ak ñoom amuñu benn contrat te <laughs> ñoom dañuy chantage am ak ñoom benn contrat lu ma neex laay wax tey donc ils se font beaucoup d'argent et qualité de service bi du demee noonu Euh, daaw jéeg defe naa bi ñu leen infligé sanction yooyu y a eu y eu un léger mieux mais on a remarqué année bii hormis les moments où l'internet a été coupé euh, pour des questions de de de sécurité euh, qualité de service bi dafa baissé alors que au même moment du côté euh, de de de l'ARTP wala vous vous êtes équipé euh, dépendre leen parce que à l'époque dañu doon wax naan opérateurs yi dañuy faute di joxe euh, chiffres yu leen yu leen yu leen neex euh, régulateur bi s'est équipé euh, régulateur bi def na ay réformes ñun dañ koy sentir et Sénégal ces dix dernière années il y a eu de nombreux de tellement tellement d'avancées dans ce secteur la mais aujourd'hui li ñuy jooy mooy les tarifs ak la qualité de service qualité de service ça s'est dégradé et je comprends pourquoi benn euh, régulateur bi ne non avec vous ça se passe bien euh, euh, le euh, régulateur euh, et le euh, régulé ne doivent pas s'entendre c'est pas bon pour nous je je je pense que ki nga wax ça se passe bien ça non non moi ça doit bien se passer. non vous ne devez pas vous, vous non c'est pas une question d'entente. Ah. moi je ne suis jamais et je ne serai jamais dans des ententes pour ki mu xam xam na man je ne serai jamais dans dans des ententes nekkuma ci yooyu. Euh, euh, euh, s'entendre avec les opérateurs, c'est être toujours à leur côté, les accompagner, parce que nous, avons, nous, nous devons, nous avons aussi l'obligation d'accompagner les opérateurs. Parce que euh, secteur B, euh, c'est un secteur qui est extrêmement important pour l'économie du Sénégal. Si on tue les opérateurs, on tue l'économie du Sénégal. Non, pas les tuer. Non, non, j'exagère. Je, je, J'exagère, je suis en train d'exagérer. Euh, euh, euh, li ma jàpp mooy il faut assurer l'équilibre entre l'État les consommateurs et les opérateurs mais li ma jàpp en termes de qualité de service nous faisons régulièrement des contrôles et nous travaillons avec les opérateurs et à chaque fois qu'ils sont interpellés ils ont apporté des corrections